arrivé waaye jamono jii daal ñuy adoog yéen di euh, confirmé waa info 7 wala képp ku koy taataan rek xabaar bi mm-hmm. mooy ñaari fan yi moom takk deer yi nekkutuñ ci biir dëkk bi dañoo xamul ndax dañ ñëwaat dañ dellu si waat ginnaaw coow li ñu dégg mm-hmm. muy coowal suuf li nga xam ne le vingt six le verdict bi war a daanu ndax dañ ñëwaat wala duñ ñëwaat loolu nag ko jéem toppandi rek xool fan la yonent di mujjee bëtam waaye actuellement ñu adag yéen ñu ci biir ndox mu bari ñu ci biir tax bi police yi ci génn nañ Tiwaawan <laughs> euh, waaw as euh, mu mel ni le vingt six ans ñu bëree bëri ñu ngi koy waxtaane euh, Tiwaawan moom le vingt six boobu di date boobu moom naka lañ koy déggee ñoom waa Tiwaawan ci boppam as Malick waaw kon mu meer na dëgg la comme ko waxee rek waaye mel na ni daal man mi nga xam ne maa ngi teewal correspondant bu Réveil Secteur mhm. du ma dox ba dégg sax nit ñi di ko waxante ko di ko waxantoo ci biir dëkk bi nag mel na nag ñoom daa rek yëguñ ci dara wala ñoom defuñ ko sax seen xel mhm. ay ñeen di débat waaye doo dégg sax comme nga fekk place publique nit ñi di ci débat di ci waxtaanee mel na ni daal ñoom jàpp nañ ne la vingt-six jàmm rek am Tivaouane kon daal loolu la ñuy a bu taataan xam naa nag eh, dañu toppoon xabaar bi ba xam waaye en tout daal fii may waxee moom Mor Diouf di dëggalaat li li ma waxoon ci ginnaaw rek moom mooy alkaati yi eh, gendarme yi nga xam ne ñoo fi duggoon ak seeni bëriwaay ak seeni ndaamaar yu bëri eh, ñoom daal génn nañ ni ci altine bii ñu génn ñaari fan yi daal Mor Diouf mën nañoo jàpp ne moom alkaati yi nekk ko ñu fi Mhm. kon as xam naa ñu ngi lay jaajëfal rek nga toppal ñu xibaar bi incha allah dinañ ci ñëwaat Asmali Cissé gën ko yaatal. waaw incha allah di euh, jox daje rek incha allah dañ ko jéem a toppaat waaye di jaajëfal auditeurs yi info 7 yi nga xam ne waxtu yi ñu ngi topp seen édition spéciale boobu noonu ngeen di am tey jii foofu si info 7 di jaajëfal ñi nga xam ne tam ñoo fa toog Ousmane Ndiaye ak euh, ki nga xam ne moom mooy Oustaz Souleymane Bari ak Grand Maguette ak kullu kuy euh, auditeurs yi bu set rek ba ci correspondant ñu nekkal ci diwaan bi Mor bu fekkee amaat ko beneen laaj rek dañu lay delloo antenne bi waaye actuellement mooy wax yow nag diwaan bu ñuy taw taw bu rëy depuis une ba léegi moom mu ngi taw treize heures ba léegi El Hadj Mor Diouf kon El Malick Cissé Tivaouane correspondant info 7 <laughs> ñu ngi ko jaajëfal Asmalik Cissé ah, en direct foofu nga xam ni moom mooy Tivaouane comme ni ngeen ko déggee rek euh, muy le 26 nga xam ne ñu bari ñu ngi koy waxtaane mu mel ni foofu ca Tivaouane nag euh, daanaka rek mën nañ ni le 26 boobu moom euh, ñu néew ngay dégg ñuy dox di ko waxtaane foofu nga xam ni moom mooy Tivaouane xam naa incha allah dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal incha allah ci suñu yeneen jitaayu xibaar kon dañuy bàyyi rek Ousmane ak Al Oustaz Souleymane Bari ak Grand Maguette Sarr di jaajëfal auditeurs yëpp jaa ngeen jëf ci kat gala